ak euh, kontante di ànd ak yéen ci seen télévision Mouslih TV ñuy ñëw ak yéen ci suñu émission bi ñu tuddee Al Azkar tey nag nekk seen juróom-benneelu numéro juróom-benneelu numéro boobu dañ koy dugalanteeg juróomeel bi ndax fa ñu yemoon fa la ñuy tàmbalee tey muy ci wàllu julli li nga xamante ne moom mooy euh, safa ak witre xam ngeen ne julli la boo xamante ni ne yonent bi sallallahu alayhi wa euh, ci xadis boo xam ne abi xurayra moo ñu ko indiloon muy wax ne awsaani xalili bi salaasin sallallahu alayhi wa mu ne sama xarit ba day sallallahu alayhi wa sallam dénkoon na ma ñett mu ne bi ci jiitu mooy siyaamu salaasati ayaam min kulli shahr mu ne wooru ñetti fan ci weer bu ne nekkul nag ci weeru euh, maanaam euh, calendrier grégorien bi mooy bi nga xam ne janvier la tàmbalee jëm décembre waaye ñu ngi ko daté ci calendrier musulman bi nga xam ne hijriyaay la nga xam ne mi ngi tàmbalee euh, muharram ba zulhijja muy fukki weer ak ñaar yoo xam ne Eh, borom bi tabaaraka wa taala dafay wax ne wa tilkal ayyaamu nu daawiluha na naas mu ne yii mooy fan yi nga xamante ne dañ koy eh, maanaam joxe eh, wërale ci li nga xamante ne moom mooy nit ñi mu nekk ci at bi mu ne ginnaaw ñetti yooyu mu nekk ñett ci le 13 le 14 ak le 15 ci weeru musulman bu ne bu ñëw bu ne loolu ñu ngi koy dàkkantal ci li nga xamante ne moom mooy weer bi euh, bu nekkee clair de lune ñetti fan yooyu nga xam ne euh, weer bi dafay leer naññ beneen bi mu ne rakkanta duhaa mu ne rakkaay yoor yoor daanama dénk may def ay rakka ci yoor yoor waaye ñetteel bi mu ne wa an awtara xabla anaam mu ne may euh, witre ci balaa may nelaw kon gis ngeen euh, yonent bi salaa salaam mi ngi dénk ki nga xam ne mooy Abi Hurayra di ko wax ne ko na def witr sax balaa muy nelaw am na ñoo xam ne ne xëy na dañuy wax ne ñoom dañuy julli guddi ñu bari dañuy laajte ne dañuy julli guddi naka la ñuy def ni ngay def mooy su fekkee ne wóor na la ne euh, say nelaw mën nga koo euh, yeewu ci guddi gi def li nga xam ne mooy xiyaamul li bu la neexee mën ngaa bàyyi ba def say ràkka ba pare door a def li nga xam ne mooy sa safa ak sa witr waaye bu fekkee ne euh, xam nga ne euh, say nelaw moomoo ko defal sa safa ak rek bu ko defee bu nekkee yeewu nga ci guddi gi nga def say naafila rek te doo dolliwaat li nga xam ne moom mooy safa ak witr kon bu fekkee yaa ngi tëdd na fekk nga julli gee Euh, def sa safa ak sa witre yore sa njàpp mu tooy xepp daal di fas yéene nag jëm ci li nga xamante ne moom mooy tëdde daal di muur say ndab ndax yonte bi salaa salaam day santaane kuy tëdd na tëj say bunt waaye nga muur tamit li nga xam ne moom mooy say ndab ñu bàyyiloo xel bu baax ñi nga xamante ne dañuy am ay ndab yu ñu lekkee bàyyi ko noonu mu tasaaroo ci biti duñ ko muur duñ ko def dara bu ñu yeewoo yonti salaa salaam day wax ne am na benn feebar boo xamante ne day euh, bàyyeekoo di wàcc bu laalee ndab yi mën na nekk euh, loo xamante ne dafa euh, tooke lay doon beneen bi muy wax ne bu fekkee ne jël nga sa ndab dee ko raxas même bu fekkee ne da nga koo raxas léegi dëpp sax boo ko jëlaatee raxasaat ko lenqaliwaat ko maanaam door door koo utiliser loolu yëpp mu nekk ay. Euh, cet yoo xamante ne islaam ci boppam moom mooy sant nit ki pour mu set buñ ko doon topp ni nga xamante ne noonu lañ ko war a toppee rek kon kenn du ñu gën a set ndax euh, euh, li ñuy wax ne ad diinu a nazafatu min al iman cet ci gëm yàlla la bokk loolu daf koy firndeel kon jullit bi fu mu toll ma ngay fóot ma ngay sangu ma ngay jàpp kon loolu bokk ci li nga xamante ne moom mooy pas-pasu jullit bi mu war di dëkkeek moom saa su ne kon amul benn yoon foo xamante ne war na faa tilimee ndax yonent bi sallallahu alayhi wa dafay wax ne est-ce que yaakaar ngeen ne bu fekkee ne am na dex buy jaar ci bunt këru kenn ku nekk ci yéen mu ci laal juróom-ñaari yoon par bés est-ce que kooku yaakaar ngeen ne war naa tilim li ñuy tontu rek mooy déedéet juróomi yoon. Euh, ci bés bi est-ce que yaakaar ngeen ne kooku dina tilim kon da ngay jàpp ne koo xam ne dangay sangu juróomi yoon euh, yaakaar naa ne kooku moom amul fenn foo xam ne tilim walla feebar war na laa mën a dugg kon boog mu ngoog ki nga xam ne mooy abi xurayra loolu la ko xaritam ba di suñu xarit ñun ñëpp sallallahu alayhi wa sallam loolu la ko dénkoon beneen bi mooy euh, léegi ñu ñëw ci li nga xamante ne moom mooy léemuwaay bi parce que bu fekkee ne dem nga nag ba toog ci sa kaw lal li ngay def mooy nga tàllal say tànk jublu li nga xamante ne moom mooy tàllal tàllal say loxo ndax yonent bi sallallahu noonu la ko daan defee toog tàllal ay tànkam tàllal ay loxoom euh, jàng fas yéene jàng nag li nga xamante ne mooy sóoratul ixlaas muy qul huwa allahu ahad benn yoon jàng suratul falaqi benn yoon jàng suratul naasi benn yoon daa di ëf am na sax ci xadis bi danaan buy ëf dafa mel ne kuy xaw a tufliwaale loxoom tuuti daal di koy diw ci yaramam tàmbalee fa gën a kawe ba nga xam ne mooy fa gën a suufe muy maanaam ci fi nga xamante ne moom mooy boppam ba ci tànkam benn yoon nga daal delluwaat jàngaat ixlaas jàngaat falaxi jàngaat surtu naas beneen yoon ëf daal di diwaat sa yaram delluwaat defaat ko ba muy ñetti yoon waaye nekkul ne dangay jàng ixlaas bi ñetti yoon ci benn temps bi jàng surtul falaxi ñetti yoon ci benn temps bi moom daawul def noonu da leen daan boole ñoom ñett ku ci nekk mu jàng la benn yoon su paree ci li nga xam ne moom lay jàng daal di koy diw ci li nga xamante ne moom mooy yaramam euh, fii mi ngi wax sax ne Euh, Buxaari yu moo ko soloo ak muslim ci xadis boobu nga xamante ne moom lañ leen indil léegi mu jëm ci wàllu li nga xam ne moom mooy diw sa yaram ci fépp ci sa yaram nag euh, dalee ko fi nga xam ne moo gën a kawe ba ci fi gën a suufee bi ci topp mooy jàng ayatul kursi yi nga xamante ne jullit bu nekk sa arme la amul jullit bi sàggan mooy jullit boo xam ne mënul mokkal loolu noonu nga xam ne aaya la boo xam ne ñaari ligne la ak tuuti ca wet ga nga xam ne jullit bu farlu bu ne loolu daf koy def armam parce que yonent sax mi ngi wax ne euh, man qara'aha ida awa ila firashihi fa innahu lam yazal alayhi min allahi xaafidun wala yaqrabuhu cheytaan xata yusbixa rawaahu buxaari wa muslim mu ne koo xam ne bu dellusee ci lalam ñëw ci lalam toog dafay jàng li nga xamante ne moom mooy aatul kursi yi mu ne du deñ mukk euh, borom bi tabaaraka wa taala di nekk ak moom di ko sàmm waaye seytaane du ko jege ba ba muy yeewu kon loo xam ne seytaane du la jege doo am euh, kon li nga xamante ne mooy gént yi nga xamante ne euh, yaa ngi koy def mu nekk gént yu lay tiital wala gént yoo xamante ne dafay naqari lool ci yow ba dangay tiit yeewu wala dalay yàqal li nga xamante ne moom mooy sa nelaw bu dal bi nga xamante ne moom nga doon nelaw ah, mu ne xadis boobu kon bu xaar yu mooy ki nga xamante ne moo ko solo ak ki nga xamante ne moom mooy muslim jullit bi sopp nañ ci moom buy tëdd mu yore njàpp bu tooy xepp njàpp lu tooy xepp boole kook di tudd borom bi tabaaraka wa ndax li nga xamante ne moom mooy euh, tudd borom bi tabaaraka wa taala mooy nag askaar yi nga xamante ne ne moom nga moom ngay def askaar yi nag incha allah ci beneen émission topp leen ñu bu ngeen ñu toppee ci émission bi nga xamante ne moom mooy ñëw ci seen juróom-ñaareelu bind incha allah nag ñu doog a dugg ak yéen ci li nga xamante ne moom mooy euh, ñaan yi nga xamante ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ci bépp jullit boo xamante ne da ngay tëdd noo war a tëddee ak li nga xamante ne moom nga war a ñaan euh, kon ñu ngi leen di tàggu di leen jox dig daje incha allah ba beneen yoon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu xoolal